mbokki Sénégal ku nek dégg na Minon Chic Minon Chic borom di solal gor di solal jigéen ñew indi leen spécial offre Ramadan fassiyene yéene leen sañseel lépp lu jëm ci homme et femme jàllabe yu lol. lol ànd ak ay bonnet lu ko gëna a rafet am mbaxana yu rafet lol. jàllabe couple yangok yak sa aladi ngeen ay mbokki Minon Chic mu leen gunge ci yi noy lol, neex te garantie ànd ak ay électronique chic Facebook Instagram dem fekk ñu boutique en ligne la avons 78 599 86 70 78 599 86 70 et spécial offre Ramadan andak ak brum chic borom jàllabe yi rafet yi xamul Sénégal Moi de yéen yu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 man man seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Kobar maa man mbégte àndaat ak yéen ci seen émission bi di Al Irshad comme ni ñu ko waxee Al Irshad fas yéene gunge gunge ak yéen euh, ci weeru koor gi yëpp alhamdulilah ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ñaan suñu kàddu yi fekk ñëpp ci jàmm yal na yàlla saafara mbokk yi nga xam ne tawat daf nga xamante ni tawat daf ne na dab ñu nekk ci euh, biir kër yi ak ñiy doxantoog ñoom ñu itam ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen shifa li nga xam ne jamono bi caabi daf leen a féete ginnaaw te nattu rek a ko waral maa ngi leen di eh, mastawu di leen fàttali rek la waykatu arab ba waxoon man araada mu'nisan fallahu yakfi bu ngeen bëggee wéttal rek yàlla na doon doy na nekk seen wéttal kon wéttalikoo leen seen borom te xam ne foofu nattu rek la te nattu du wees jàmbi na yàlla jëlee leen fa ñun ñu ko xamul yàlla ñu ci yàlla musal bi jaa rasul sallallahu alayhi di ñaanal yàlla yërmande suñu mbokk way dawle yi nga xam ne amaan na kooru daaw bokkoon nañ ci ñu ko woor te ren yàlla nattu leen bokkuñ ci ñu ko woor yàlla yàlla yërmande yàlla wàcc seen kaw bi jaay rasul sallallahu alayhi wa yàlla doolu jàmm ci réew mi defal ko bépp mboolem jullit comme sama gan gi du présenté ndax mag mooma nekk di bi Cheikh Omar suñu deuxième numéro waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi safoo di seetaan seen télé bu mag bii di Kaolack TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel mbeleen yoon ci koor gu màgg gi weer bi nga xam ne weeru yërmande la weeru yéggal la weeru njot ci safara la di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq ak taysiir bañ mën koo mottali ndax tàmbali nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu mën koo mottali ci alhamdulillahi rabbil alamin ànd ak nangu ak xeewal ak fekkee tal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmed Tidiane di santaat yàlla beleen yoon moom mi ñu mayaat ñu teewaat ak yow ci émission bu màgg bi nga xam ne mooy Al Irshad di ci fàttaliwanteeg mbokk jullit yi ci li nga xam ne moom la ñuy jëriñoo ci koor incha allah ndi ah, amaan mbégte bu baax a baax teewaat ak yow xam naa ne incha allah suñ duggee ci waxtaan bi danañ wax deuxième numéro bi tey incha allah liñ leen indil ci kàttanal borom bi subhanahu wa taala waaye laataan loolu rek ñu ngi jël suñu nuyoo di ko teg ci sa nuyoo bu matale bu tedd boobu di ko jox mboolem koo xam ne yaa ngi seetaan télé bi rek di jox nuyoo bu matale boobu incha allah di wax canta ngërëm canta ngërëm ñenn la euh, Cheikh Omar Cheikh Khalil euh, laataa ci yow euh, suñu partenaire officiel bi macha allah di Mina Chic gis ngeen léegi publicité bi ni mu ko indee Mina Chic moom nekk benn boutique en ligne di jaay ay jàllabi macha allah yu taaru defe naa ne ku ma xool ni ma yaanjee tey sax xam ne tey moom macha allah moom moo ko fi génnee maa ngi koy euh, nuyu di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen boutique en ligne la lépp lay jaay day jaay chapelet électronique day jaay sijaada euh, lépp loo xamante ni rek dañ ko yittewoo ci koor gi incha allah boo demee ci Mina Chic dana la ko euh, yombal incha allah mën nga ko jot ci 78 599 86 70 78 599 86 70 Mina Chic ñëw fas yéene gunge ànd ak yéen ci koor gi li ngeen di soxla ay jàllabe yu taaru macha allah gaaw leen gaaw wooyu ko mu defal nañ jàmm di ko sàkku ci yow ci moom euh, sëriñ bi ma dellusi euh, ba tey ci al irshad comme ni mu niñ ko waxee suñ premier numéro ñëw nañu waxtaan euh, ci koor aji bi taxawaayam ak li nga xamante ni moom noonu lañ war a wooree bëgg naa tey nga ñëwal ma ci baatu saw nee nañ as saw mu lan ma maana saw lan mooy saw waaw dama bëgg nag nga toj ko sëñ bi waaw Cheikh Ahmed Tidiane ñi ngi amaan mbégte bu baax a baax toogaat ak yow ndax yow wax dëgg yàlla suñ toogee ak def émission dafa am ay ziyaadaat yoo xam ne day am ci suñu ci suñuy mbir xëy na nag ci tuur bi la ak euh, kañ la tuddee ndax moom mooy miftaaxul mi di santaat yàlla bu baax tey nag nga indi imi euh, question bu am solo te nekk loo xam ne wax dëgg yàlla day jotale ak suñu waxtaan bi passé na waxoon nañ ci baatu koor lan mooy koor firi woon ko waaye nag pour ñu mën a am dëgg-dëgg koor ak loolu noonu yàlla wax ci yëpp muy ragal yàlla bi il faut ñu xam lan mooy sawmu ramadan ndax arab suy wax danaan la weeru koor weeru koor la ñuy wax bu dee arab dañ naan la chahru ramadan chahru ramadan waaw mooy weeri koor bi waaye or weeru koor lañuy wax waaw waaw mooy weer ramadan shahru ramadan ak sawmu ramadan dafa am. dafa am wuute dafa am wuute. Hmm. waaw shahru ramadan suñ ko waxee mooy weer wi. Hmm. mais sawmu ramadan mooy li ngay def. waaw hmm. mooy li ngay def te incha allah suñ firee lii sawmu ramadan da nga xam ne kon li tax ñu war a woor. lii moo tax yàlla borom bi subxanahu wa taala digal ñu woor. ndax waxoon naa la tamit toujours benn dalil bi ñuy fàttali. mooy li tax ñuy koor. mooy comme na ma la ko waxee woon démb ci émission bi. ne la yaa naa amanu kutiba aleykumu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون لعلكم تتقون goog mooy waral ñuy koor te pour ñu am tattaxun goog il faut ñu xam sawmu ramadaan ñu mën koo jëfee dund ko ndax waxoon naa la démb ne la koor dafa nekk loo xam dafa xaw a metti ndax xiif dafa metti mar dafa metti am lu bari loo xam ne la daganoon ci bëccëgu weeru koor wala daf la dagganoon ci bëccëg bu dul wéru koor tay ci bëccëgu wéru koor sañu ko def daf la haram mm-hmm. sañu ko def daf la haram tax mm-hmm. soko defé bakkar nga ci am lu dul nga mu dul ngam ngant mm-hmm. kon motax tax baatu saw mu suñ ko firee da ngay xamné kon li ni motax yalla digal ñu koor <laughs> cheikh bi sawmu mu da fay jox shin waaw mim ramadan jox la ra miim baat alif nuun mu jox la neuf baat ci secret rek saw mu ramadaan secret la waaw eh, xam nga sa très rare ñuy woor trente jours mhm. parce que loolu sax lekk léeg c'est très mhm. mais vingt neuf moo gën a wér moo gën wér moo ëpp sax waaw neuf dafa am lu muy signifie mhm. te soo xoolee adat yàlla ci ci ci ci lu bari ci lu muy wax wax naa la yàlla borom xel yi lay waxal. Mm-hmm. waaw adat ci neuf la yam mm-hmm. waaw ndax soo bëggee am beneen adat. Mm-hmm. da boole ñaari chiffre pour nga am lu weesu neuf. waaw. zéro la dale ba neuf. waaw léeg-léeg dañ naan la zéro dara la loolu nag taxu ñoo jóg. ñu ci koor. saw mu ramadaan la wax. juróom-ñeenti xaraf la. siin gi dafa am lu muy junj. waaw. waaw gi dafa am lu muy junj. Mhm. miim gi dafa am lu muy junj. muy baatu sawm. Mhm. soo ko soo xamee ba pare. Mhm. nga doog a am résultat bi nga xam ne moom la la yàlla defal ci lool. te mooy Ramadan. ñëw ci gaaw ñëw ma ci Chine. gi. mooy chaat bi. su waxee chaat. chaat la waaw chaat la chaat la chaat la waaw ngeen baal ma ngeen baal ma man ndongo bi jàng. dama juum chaat la. <laughs> Uh-huh. saw mu la ñuy wax. Uh-huh. Uh-huh. baatu saw mu lim lay junj mooy lan yow miy koor war nga mën a fexe ba takkoo mm-hmm. ak sabru muñ muñ ah, ah, doo ko def ah, koor ku mënta muñ doo woor inna allaha maa sabirin waaw ba pare daf ñëw dénk nag ñuy muñ wastainu bi sabri ba pare fale muñ digal ñu ko yaa mm-hmm. alladina amanu isbiru mm-hmm. waaw isbiru na ngeen muñ ci lan hmm. ci koor na ngeen muñ ci lan ci julli hmm. na ngeen muñ ci lan ci joxe azaka na ngeen hmm. muñ ci lan ci aj màkka parce que jaamu yàlla dafa bëri ay coono yi ci nekk su fekkente ne coono yooyu yëpp yàlla dimbale la mënoo koo muñ doo ci am tiyaabo parce que waxoon naa la ci njëlbeen nga ne la yàlla yéene lay fay su amee yéene pour def ba pare te li ngay def yow mënoo cee muñ doo am résultat moo tax saw mu soot gi muñ lay firi yow mi woor da nga muñ xiif muñ mar muñ bànneex yi la bànneex yi nga xam ne mm-hmm. waroon na laa dagan ci bëccëg bu dul weeru koor mu tey mu xaraam la nga muñ ko ngir heure bi min loo fajri ilaa xurubi samsi sabru muñ Sering bi day faral di wax Cheikh al Khalifa Hadj pap Cheikh Omar Niass ñu koy nuyu di ñaan yalla mu yàgg fi lool ndax mom mbolem lu ñuy wax ci xam-xamam lañ ko jëlé day wax mu ne nday jikko yu rafet yépp muy muñ mu ne ndax doom aadama bi su fekkente ne yàlla na ba nga mëna muñ mbolem xéewali yalla yi dang ko mëna am te mbolem natu yalla yi dang ko mëna muñ te su boba yalla lim lay fay mooy ngërmaande te jambi amul dara lu soxla ci digënté mak borom bi lu dul képp moo tax soot gi sabrun muñ kon yow mi woor ngel la na nga fexe ba muñ nga saxoo muñ bul jàpp ne muñ gi nag ci weeru koor bi kese la mais déedéet fexeel ba am jikko joo xam ne mooy jikko yi muñ nga def ko ci sa biir koor daf la koy jàngal pour après koor nga mën ko continuer moo tax il faut nga nekk muñ kat ndax yàlla euh, mbiram yi ku muñul doo ci mën a jëriñu kon koor day da la jàngal lan muñ ñaareel bi mooy lan waaw waaw gi mooy lan mooy wafaun wafa wafaun wafa mooy kóllëre kóllëre eh. parce que alxuraan moo ñu wax ne kóllëre borom bi subhanahu wa taala daf koy laaj mm-hmm. ba pare digal ñu ñun jullit ñi mm-hmm. yaa alladina amanu mm-hmm. awfu bil uqudi na ngeen matal seen i kóllëre yi. Mm-hmm. yéen gaa yi gëm yàlla ak yonent bi na ngeen matal seen kóllëre yi. Mm-hmm. te koor ku gëm yàlla koy def. Mm-hmm. ndax loolu la wax yaa allazina amanu. kutiba aleykum siyaam. fii mu ne la yaa allazina amanu awfu. awfu bil uqudi seen kóllëre yi na ngeen koy matal. kon waawu sawmu bi. mooy lan kóllëre. ndax yow jullit bi danga am kóllëre sa digganteeg borom bi. ne moom ngay jaamu. nangu nga lépp lu lum la digal da ko war a def. lépp lu mu la tere da nga ko war a bàyyi mu digal la ne da ngaa war a woor nga nangu ne da ngaa war a koor kon koor goog su fekkente ne yaa ngi koy def jàppal na kóllëre gi nga fas daan teg sa borom subhaanahu wa taala da nga ko war a matal ndax inna al ahda kaana mas'uula yàlla day laaj kóllëre kon yow mi woor war nga mën a fexe ba xam ne dama am kóllëre sama digganteeg borom bi kon koor gii nii day tax ma man a matal kóllëre te jéem cee yar sama bopp ci kóllëre ndax su koor gi jeexee ma mën koo continuer yaa may dégg beleen bi mooy miim miim gi mooy lan mooy muharramaat min jamiil muftaraat waaw day ñëwaat ci al imsaak waaw jamiil muftaraat mooy muharramaat da fexe ba miim gi mooy lan nga xaraamal sa bopp mm-hmm. mbooleem loo xam ne dagan na la ludut bëccëgu weeru koor mm-hmm. ci biir koor gi lii nii daf la xaraam c'est que li ngay wax nii maanaam li nga ne di wax nii yëpp dafa day dafa am maanaam foo ko dafa am foo koy méngale fu leer fu jege fu soriwul xam nga tey boo nee buñ an niyatu moo jiitu ak al imsaak an jamii muftiraat waaw nga ñëw ci mi mi ne muharrama an jamii muftiraat muftiraat nga xaraamal sa bopp fekk yàlla digaloon na la ko yow waaw miim gi mooy nga fexe ba xaraamal sa bopp lépp loo xam ne dagganoon na la ci lu dul bëccëgu weeru koor mais ci bëccëg weeru koor daf la xaraam. xaraamal ko sa daf la xaraam daf la xaraam. waaw maanaam nekkul loo xam ne yow yaa naan lii mais daf la xaraam. waroo koo def waaw xam nga li waxee foofu. waaw te am na tey ñun. loo xam ne xam nañ ni lii dafa xaraam. waaw ñu fëtt suñ nopp yi fëtt suñ bët yi. di ko def <laughs> di ko <laughs> boo boo boo boo matalee sa sa sa bopp boo ko xaraamalee sa bopp. ci koor gi rek. waaw soo génnee leneen li nga xam ne xaraamoon na la. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi may dégg bu baax maanaam li nga xam ne daf la xaraamoon dootu la jaaxal da nga koy bàyyi automatiquement ndax li la daganoon nga mën koo xaraamal sa bopp asuma ak li la xam ne xaraam nga la moo tax koor dafa yéeme xam nga ñu bari suñuy jàngale ci koor comme li ma la waxoon démb dañuy ñëw rek wax la koor yërmande la nii naan déedéet mais dëgg dëggi koor suñ ko jàngalee jullit bi day mat mhm. day nekk day nekk jullit bu mat sëkk mën mhm. a am taqwal ilaahi bi ñuy wax ndax ponk la mhm. te ponk bi da ko war a xam mhm. te soo xoolee li nga xam ne daf la xaraam te dagan la te jege la lool nga mën koo bàyyi te mu leer ne la lii war naa koo mën a bàyyi ndax ki may gis mu ngi may gis te mu ngi xam ci li ma ne mhm. maanaam kóllëre day feeñ foofu mu leer na la tey exemple sa soxnaa ngi nii jege la zéro mètre lew na la dom lew la dom nga am sañ-sañu def ko lu la neex bëccëgu weeru koor ñemewoo koo teg loxo sa xel di nekk ci moom ba ngay am bànneex ci moom ah te yaa ngi tëjoog moom ci néeg kenn gisu leen nga am kóllëre ci sa digganteeg borom bi mm-hmm. subhaanahu wa taala xaraamal sa bopp sa soxna maanaam ñetti ñetti kalima yëpp day ñëwaat ñetti xuruf yëpp ñëwaat mooy sabru wafaaw wafaaw ak muharram muharram ñett yëpp day ñëw tey ñëwaat ci loolu benn mi nga muñ gis nga sa soxna nii lew na la doom muñ nga ko mottali watt sa kóllëre sa diggante ak sa borom parce que xam nga ne mu ngi lay gis xaraamal sa bopp sa diggante ak moom léegi nag yooyu soo ko defee ba mat ko ci koor gi ci vingt neuf jours yi soo génnee soo gisee jigéenu jàmbur moo xam ne leer na daganu la da nga koy mën a muñ saxal du ci ne loolu la oustaz Ibrahima Ka maa ngi koy nuyu de passage Euh, tey rek moom la doon euh, ki moom la doon euh, xutba ci jumaa ji maanaam développement personnel dafa am solo mu ne boo jëlee ñetti jikko rek ci 21 jours rek nga sàmmoonteeg ñetti jikko yaa boo génnee ci koor gi day day xam nga dafa am yenn borom xam yoo xam ne dañ ne nit ki su bëggee baax su day day day jëfandikoo baax pour baax. <laughs> waaw maanaam su bëggee baax day jëfandikoo baax pour baax maanaam ni ngay jëfandikoo baax mooy lépp loo xam ne yow dagan na la nga fexe di ko xaraamal sa bopp wala di ko wàññi ci sa digganteeg sa bopp xam nga dañuy nettali ne Maam Alaaji Abdoulaye radiyallahu anhu kabir daanu lekk soow ñu ne Maam Maodo radiyallahu anhu daanu lekk ndawal te yooyu yëpp dagan na li leen daganoon dañ koo xaraamal seen bopp ngir lan moytu yi nga xam ne dafa xaraam mutlaqan ci seen dund xam nga kii bàyyi soow ak neexaayam ba ne duma ko naan ndax léeg-léeg damay bañ xar maa ngi ko ratee wala nag bañ ko ratee mu jël àq jàmbur àq googu di ma topp moo tax jikko mhm. koor jikko lay defar mhm. du xiif du mar du toog naan ay déedéet sa jikko ji la mhm. saw mu sa jikko ji la war a defar formation la xam nga léegi-léeg nga toog ba mu yàgg ci jamono ñu toog ba mu yàgg dafa am benn formation bu ñu war a def mm-hmm. pour nga am diplôme nangam mm-hmm. pour nga mën a euh, liggéey ci nangam mm-hmm. même tey ci télé bi sax léeg-léeg da ngay def formation xaw ma nu koy waxee info euh, infographie wala ah, informatique ah. pour lan nga mën a xam micro bi ni ñu koy taalee nii nangam koor loolu la dafa ñëw pour jéem a defar sa jikko ji pour nga mën a nekk abdan saalihan jaamu yàlla bu set wecc mm. doo jaamu kenn ku dul borom bi subhaanahu wa taala su boobaa lépp loo xam ne ibaadaat la ci jaamu yàlla yi la mm-hmm. soo koy def da ngay yëg ne lii yàlla noonu ko nangul mm-hmm. ndax da ngay xam li ngay def te lépp loo xam ne yaa ngi koy def te xamoo ko ci ay erreur rek ngay def moo tax mm-hmm. koor dañu war a xam ñetti baat yi yim tënk waaw su ko defee nag soo paree nga am ramadaan su fekkente ne waxtu ñu may nañ ko incha allah ñu wax la li ngay amee ci ramadaan pour nga mën a am laallakum tattaxun macha allah defe naa ne waxtu bi dab nañu sëriñ bi te defe naa ne ñëwal nga ñu ci taaliqal nga ñu ñett ñett araf yi nekk ci asawmu mooy chaat bi ak waaw bi ak mim bi jërëjëf dinañ ci dellusiwaat incha allah bu ko defee ginnaaw bu ñu taqoo ñett yi mooy muuñ ak kóllëre ak xaraamal sa bopp li dagan ci yow Eh, nga naka ngay mëna def ba jëriñu nak ci koor gi inshallah allah dinañ ci ñëw ci benen numéro ba bayil la sëñ bi nga tàggoo ak bopp waaw di santat yalla bu baax alhamdullilah mom mi ñi may tawfiq bañ mëna motali émission bi di ko won ah di amane bekti ci yow bu baax baax di wax sha allah di ñaanal ki nga xam moy sponsor bi minashik mm-hmm. Mina Chic eh, di ko ñaanal yalla boutique am bi sha allah yimi jaay rafet na ta taruna di ñaan yalla yalla yok ko def ko tawfiq di amaan mbégte bu baax mboolem koo xam ne yaa ngi doon seetaan Kaolack TV ak foo mën a nekk ñu ngi am mbégte di la euh, ziar. Mm-hmm. di la ndokkeel it ci koor gi di ñaan yàlla yàlla defal ñu taw tawfiix ñu mën koo matal. ndax euh, yërmande la ak njéggal ak njot ci safara mhm. te ñett yooyu yëpp ñett fukk yooyu yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu tawfiix bañ bañ koo mottali mhm. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax baax sama soxna soxna bul xayri di ko bu baax fu mën a nekk ak waa kër gi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mhm. di nuyu sëriñ bi bu baax a baax suma yaay di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wala mu may njëkkantu di nuyu soxna waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf eh, Cheikh Omar Cheikh man daal li ma jaaxal ci waxtaan bi wax nga lu am solo léegi Eh, ñeel ñeel maam Alaaji Abdoulaye Al Kabir li tax daawul naan soow jikko boobu moom jëloo ko ci sa maam dañuy wax ne la ca la ca la ca la ca euh, maam ja sët baa koy boobu jikko moom jëloo ko ndax ku lu war liggéey fi mu nii bu ko dugalee ci soow jàppale sëriñ bi barakallah fii que sant nañ la eh, eh, ndokkeel itam la ci dalal bi nga xam ne ñëwaat nañ ko bokkaat ko plateau bi di émission Al Irshad barakallah fii ko mbokk yi ñuy seetaan sant ko gërëm ko euh, jaajëfal ko suñu partenaire officiel bi macha allah di comme ni ma leen ko waxee léegi gis ngeen fii ma génn moom moom ma fi génnee di jaay yu taaru yu yu rafet macha allah yu mucc ayib bu ngeen demee euh, ci fu ngeen mënti nekk fu ngeen ko woowee mu livrer leen li ngeen bëgg ay jàllabi couplé ay sajaada ay bonnet chapelet électronique gis ngeen ko noonu ci écran yi macha allah mina chic barakallah fii kii wax naa leen bu ngeen ko bëggee jot mën ngeen ko woo ci 78 599 86 70 78 599 86 70 fu ngeen ne partout ci Sénégal mën na leen livrer seen produit yi gaaw leen gaaw woo ko mu defal leen yu baax yooyu macha allah di wax mbokk yi nañu joxante dig daje incha allah ci beneen numéro sant ko gërëm ko moom Cheikh Omar Cheikh Khalil wa fil xitaami adonullah li wa lakum alfawzu bi jannati wa najaati min annaar kullu aamin wa antum bil xayri wa aafiya wa sahada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu